jërëjëf s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît dama leen di nuyu s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît dama leen bëgg a nuyu di leen andil nuyoowu président Macky Sall mi nga xam ni moom moo ñu digal li ñu fi dajale tey weer yi passé daf ma ne monsieur le premier ministre dama bëgg am bilan wu xëyu ndaw ñi ma ne Pape je te félicite. Tu as encore marqué un but. ma ne def compte rendu xëyu ndaw ñi yomb na. mais je préfère. wut échantillon. wan Sénégalais yëpp. cette idée lumineuse et généreuse. bi président am idée bi mi ngi porter ses fruits xam ngeen ni chômage musiba la liggéey sutura la sakk la njariñ la loolu moo tax au cœur des préoccupations du président Macky Sall xalaatam yëpp mooy nu ñuy saafara liggéeyu ndaw ñi amoon na ay instruments yu ñu créé visite na leen léegi muy DER muy AGETIP muy FONGIP muy 3FPT muy yeneen cadre yi ma fi gis yëpp mën na leen na ñëpp ñëw ñu daje ku nekk wax ma langa def may rafetlu présence su responsable yëpp muy ministre Isaaxa ministre Karim Fofana le grand champion le directeur général de l'AGETIP maa lay félicité yàgg sa équipe yëpp Oumar Ba muraille verte directeur u CMU directeur de l'emploi 3FPT case des tout petits FONGIP FONSIS yéen ñëpp xam ngeen ni bi président àndee en 2021 programme u xëyu ndaw ñi alloué ko un budget sur trois ans de quatre cent cinquante milliards at bu nekk doon cent cinquante milliards dañ ko séddale juróomi pàcc juróom bi ci jiitu c'est un programme de recrutement spécial objectif bi ñu amoon c'était de recruter dans l'administration 65 000 agents ci métier yëpp moo xam santé la moo xam éducation la moo xam agent administratif la moo xam sécurité moo xam yeneen métier yi nga xam ni am nañ ko ci administration sur les 65 000 à date am nañ ci 66 000 te programme bi jeexagul c'est un cours ci féliciter ministre de la fonction publique pour diligence bi nga xam ni def na ko ba exécuter programme bi nga xam ni président de la république am na di féliciter aussi le ministre des finances et du budget pour la mise en œuvre diligente amu ci benn gàllankoor te taxul li réew mi war a def ci yeneen activité ñu ngi koy def ba mu mot sëkk mu am deuxième pàcc bi mooy ñaareel bi muy les projets communautaires buñ projet public d'intérêt communautaire wax nañ ci ay programme d'entretien wax nañ ci ay programme de pavage wax nañ ci programme yi nga xam ni ay programme d'utilité publique ñu gis fii ñi koy def léegi nii ci programme boobu recruter nañ ci fi mu nekk nii plus de vingt cinq mille personnes te des on n'a pas encore atteint tous nos objectifs. incha allah dinañ koy eggali ci at bii ñu nekk. am nañu yeneen programme yi nga xam ni Promoville moo ko war a def ginnaaw AGETIP. Promoville non seulement dina exécuter programme am mais di ngeen ko gis fii ci Ndakaaru du yàgg je parle de la région de Dakar pour ñu mettre en œuvre des programmes d'amélioration lii nga xam ni maa ngi koy wax ça fait l'objet d'une documentation qu'on va laisser à votre disposition muy dossier de presse boo xam ni dina wone pour l'ensemble des composantes li nga xam ni def nañ ko ci xëyu ndaw yi am na mesure de soutien à l'initiative privée mooy comme kiñ fi gis léegi FONGIP ak DER di ci yëngu bu baax a baax a baax a baax aujourd'hui avec la DER on peut dire que 141 000 bénéficiaires DER financé na leen pour des programmes yoo xam ni sur la première année c'était 23 milliards deuxième année bi c'est 23 milliards plus le programme kii est en cours président Macky jeexalagul ak yéen doyalagul ak yéen moo tax tey on a vu toutes les composantes gis nañ fi des diplômés d'université gis nañ fi ñoo xam ne amuñu woon chance jàng des charretiers ñu yàgg leen a comme des marginaux je puis vous annoncer li leen Pape wax le programme de tricycle dinañ ko mettre en œuvre parce que politique d'urbanisation àndul ak ay charrette yuy daw en allah ce programme sera déroulé et mis en œuvre je ne parle pas des autres métiers la coiffure Je ne parle pas d'autres métiers. Je pense à la pêche. Je pense à l'agriculture. Sur tous ces métiers. À l'artisanat. Sur tous ces métiers. Le pape 3 ans. mooy programme bi nga xam ni président am na ko yéene def ci juróomi at yi dina ko jël en charge ñu def ci li ëpp li nga xam ni def nañ ko ci léegi On n'oublie pas les musiciens. On n'oublie pas les artistes. On n'oublie pas les musiciens. On n'oublie les artistes. On n'oublie pas les sportifs. En un mot, le président Macky Sall a besoin de toute la jeunesse. De toute sa jeunesse. Oui, ci nga bokk. yow ci nga bokk. kii la bokk. xale bii ci la yow mii yow ci nga bokk yéen la ñuy liggéeyal yéen moom li ñuy def jeex na noonu la li ngeen wax noonu la li ngeen def noonu la Pamalik bilan bi jaratu la wax bilan bi wane na boppam mais je veux vous dire je veux vous dire yéene bi président am gouvernement bi war ko exécuter et je m'engage en tant que premier ministre à faire exécuter les directives bi président tous les objectifs assignés par le président la République seront intégralement réalisées waxuma ko pour campagne bi ñu nommé gouvernement ba tey dañoo ne tekk di gëstu mbir mi di ko xool bi ñu président ne wax leen ci xëyu ndaw yi ma ne Pape Malick du rapport du compte won ma ma gis am na waykat bu ko doon wax won ma ma gis Pape Seck Pape Malick won nañu ñu gis incha allah incha allah nous mettrons des moyens additionnels à sa disposition nous l'encouragerons et nous l'aiderons à réussir bul bàyyi benn catégorie Oui, AGTIP pour les projets d'intérêt. L'AGTIP sera soutenu davantage. Niligayek Promoville. Oui, Promoville sera soutenu davantage. Niligayek DER. DER sera soutenu davantage. Je n'oublie pas Ninekti Sécurité, Ninekti Sport, Ninekti Artisanat. Je vous remercie. À la prochaine. Maintenant, maintenant, maintenant. maintenant maintenant maintenant li ñu def fii li ñu def fii dinañ ko def dans tous les départements dinañ ko def dans tous les départements wane li nga xam ni moom la ñuy def mais surtout wane li nga xam ni yéene di président am ci réew mi ñu ànd liggéey ko ci jàmm ak je veux que population wu Parcelles profitant de cette occasion ngeen xaar tuuti rek tuuti rek ndax waa Pikine dégguñu ma waa Point E dégguñu ma nga ne wax fii fii ngeen bëgg assurer la paix ici, la sécurité ici. Nous allons faire des Parcelles Assainies de Dakar, du Sénégal, un pays émergent, une région émergente, un département émergent et une commune émergente.